asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi tey de dañu ñëwoon fii di arena parce que gars yi dañu nekk di ñaxtu di ñaxtu ñu jég ko ci internet bi daal di waaxan takk suñu daal di ñëw fi daal def suñu émission bi ñu wax ça m'énerve donc di nuyu ñëpp ne leen carrément ayca kaay leen ñu dem ñu commencé suñu émission. bu baax a baax a tey dañoo amoon benn émission bu ñuy def bu tudd ça m'énerve yow lan moo la énerve si dëkk bi Fat fu mu toll nii ak problème màggal Touba bi ñuy dégg de gauche de droite ñëpp di ko kaas ñëpp di wax. ah yaa booy bari na ndax démb ci ay 2 heures du matin lañ teewoon fii ngir bëgg a dem ci màggal Serigne Touba gi mu woote ñu bàyyi lépp te nekk ci ànd ak suñuy tuut tànk ñu ne daal fii arène bi oto yaa ngi fi wàññi nañ xéwal gi bu baax a baax a baax. te ñun ba ñu ñëwee gisuñu xéewal bu nu wàññi te biis yi tamit gisuñu ko ndax ku fi nekk démb ci deux heures di matin ba tey mënoo dem mënoo dikk añ ya añ sax defoo ko ak say tànk loolu tamit dafa metti lool waaye ñun daal am nañ lu ñu metti lool gisuñu oto dégguñu oto te sëriñ bi bu wootee nag jàppan naa ne lépp dafa war a gën a jàppandi ci dooley Cheikh Ibra ndax ñun moom ay yaay Fall lañ waaw ndax ñun gëmuñu ku dul sëriñ Touba ak ak dëkk bi metti na lool wax dëgg yàlla ceeb bi seer na dëwlin bi seer na dangay xit ma suba ba ngoon jot pour doog a am loo xewloo tey boo xewloowut doo doo doo doo lekk nga yor ay tu tànk ñuy jàng lool tamit dafa metti te doole tamit demewut noonu waaw loolu daal man li ma gën a metti tamit ci la bokk waaw ndax mënoon nañoo toog xéewal gi saawaan baawaan ay yaay faa lañ nag ñun nag xit ma rek la ñuy am gëmuñu ko dul Serigne Touba Cheikh Ibrahima ndax ñun liggéey rek la ñu xam kon sëriñ bi dafa woote damaa yor place essentiel mag école 6 mais dañ ne ma fii doomu aadama yaa ngi fi di wër kafe moo tax ma tëj sama place ak samay tuut tànk ñu ñëw yendu fii di xidma ci kafe gi mi ngi nii waaw ñun moom Cheikh Ibra rek lañ gëm ak sëriñ tubaa ak sama wasile muy sëriñ Aziz Mam Modou Moussa waaw di sët ci Cheikh Ibra di leeru sëñ Modou Moussa Fall ñun daal ñun ñun daal yaabooy ñun daal lool rek moo ñu xaw a yéeme daal yéeme na daal yéeme na yéeme na lool. su ma déggee say wax bu baax yow ay ban heure fi ñëw ba tey mënoo fexe ba am oto pour dem. man nag ay euh, midi laa fi teew ndax sama mag ji ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñoo fi nekkoon démb ci deux heures di matin ba tey ci lañ may yeewee téléphone ne ma naa segg kafe bu ma ubbi place ma ñëw fii bu ma ñëwee fi xew gi na saawaan baawaan ay man moom ay midi laa fi ñëwoon ba tey ni maa ngi toog di xit ma gisuma fi oto. soxna yi daw nañ bay bëgg de dee ànd ak seen i tuut tànk bàyyi lépp waaw pour ñu xewlu sax problème na toog fii mënuñu gis oto lu doy na màggal Tuubaa lépp a waroon a saawaan baawan tamit mais oto yi ay ay Njaga Njaay 6000 lay woote ay 7000 teguñu ko fenn sëgam njëkk mooy woote 6000 ak 7000 kon bii ci lan lañ war a woote te doomu aadama yi bu ñu soñoon fanaani tubaa mais dëkk baa ngi nii ñëpp a toog tout tànk yi ñëpp mënuñoo fexe tamit ba dem ci liggéey Serigne Touba mais nag mënut a li Serigne bi daj moom. force allah kulli al dañ koy daj ndax sëriñ bi dafa ñafe fa mu nekkoon moo gënoon a yéeme lool te teew da koo muñ tey ba ñu si fii waaw di gërëm nag Cheikh Ibrahima Fall bu du woon moom tamit du ñu xam kuy sëriñ Touba ba naan dañ koy màggal ba tuut tànk yeeg ak ñey bëgg ñëw ak ña jébbaloo ñey bëgg a jébbalu ñëpp koo wax ñu ne tuut tànk koo wax ñu ne sëriñ Touba Cheikh Ibra kon nag dañ ci ñaan yàlla suñu borom xéewal gi saawaan baawaan oto teew wàññi xéewal yi doomu aadamay dem màggal bis dellu si loolu daal moo nekkoon tamit suñuy ndeysaan suñuy kàddu waaw yéeme na woo yéeme na lool sax yéeme na. pass bi moom ñaata la mbaa cheru. non Ndiaga Ndiaye ñu ngi wootee 6000 7000 bûche yi ñu ngi woote 8000 waaw ñu ngi wootee woote 8000 mais fii moom 4000 la ñu wax mais biñ demee ba tey cinq heures ñu ne arrêté nañ suba ñi nga xamante ne daggoon nañ ticket ñu ngi toog ñi nga xamante ne daggaguñ tamit ñu ngi toog am na ñoo xam ne fii lañ toog ba ci jëlee ay métitu bañ ak ay biir buy métti oto yi gaare war a dem ñu ne duñ daw guddi gi loolu tamit teguñu ko fenn. donc ñoom fii lañ mujjee fanaan daal maanaam suma ma déggee. bërsët fii lañ fanaan ba bërsët nit ñëpp a ngi nii fii la ñu fanaan ba bërsët bëgg a dem ñu ne 5 heures lu doy na 5 heures te sëriñ bi jar na loo ëpp lool dañoo waroon a daw waaw ba fajar ba suba amul amul aller amul retour nañ dem rek te sëriñ bi rek tax mais 5 heures ñu gaare oto yi ñu ne oto yi baare nañ subaati loolu moom noonu la demee kenn mënu wax lépp mi ngi nii nit ñëpp a ngi nii bii yaa ngi gaare ne arrêté nañ suba ñi ngi daw ci kaw tali bi di xaar yeneen oto yuy teew te oto yi teew dañoo aj paas yi nañ dawal yërmande yi dëkk bi dafa dëgër te ñëpp a bëgg a dem sëriñ bi dafa woote ñëpp a bëgg a dem mais ñi nga xamante ne amuñ ñu ñuy def bëgg dem te mënoo dem daa metti bëgga dem te mënoo dem tamit dafa metti lool nañ wàññi paas yi te yàlla tax jëmmi sëriñ Tuubaa def ko addiya 3000 dong Touba Mbacké gi doy na ci waaye ay 8000 ay 7000 ay 9000 ay 10000 taxi 15000 20000 metti na wax dëgg yàlla metti na soo demee ba Touba nga war a jëlaat ay oto yu ndaw sareet yóbbu la say dal ña ngay dalal nga war a yëkkati xéewal jox la ñu di la berneel ndax benn gor bëggul tamit toog aller retour ñu berneel la yor la ba keroog ngay ñëw gor gor rek lay doon sëriñ bi moo woote lépp ma nga fa mais doolee poos tamit da caa gën làmb tamit joxe ñu dollu ci xéewal da cee gën lool

bisu état 3000 francs rek 3 na ci vraiment 3000 francs rek ci parce que nous suñu des policiers qui kenn du len japp euh, duñu fay yenn jaar ci yoon wi arrêt direct vraiment librement 3000 francs parce que subvention bi waroon nañ ko ci mëna bolé quoi mais suñu défé 4000 francs euh, bonul mais 4000 francs dafa cher ak rawatina nag ci bis yoo xam ne état moo ko moom te état moo ñu war a jàppale ñun état ci boppam moo ñu war a jàppale kon nag 3000 francs rek doyoon na ci lu dëgg. ban heure nga fi ñëw papa. non man man man fanaanu fi mais teel naa fi ñëw quoi teel naa fi ñëw. kon Public SN TV mu ngi jaajëfal bu baax. jërëjëf ma bu baax yàlla na leen jàppale merci beaucoup. salaamaaleykum. salaam. tudd. kon Mor Diop laa tudd. tonton Mor Diop tey waa Public SN TV ñoo fi jaaroon ñëw wax ak ñi fi nekk surtout ñi di dem Touba léegi yow dañ la doon laaj lan moo la énervé. non paas yi seer na mais li ma gën a énervé mooy da ngay sa paas da ngay am paas sax mais da ñëw doo mën a dem parce que dem tig te bu loolu liggéey te nit ñi dañ fi taxawaalu parce que état moo génne ay biisam mais waru waru ñu def ay heure quoi te nanga war nga ñëw rek bi si taxaw nga dugg dem baax na. mais ay ay cinq heures matin nga ñëw tamit mën nga fay ñëw cinq heures matin toog ba huit doo doo dem waaw et puis transporteur tamit sénégalais ñoom tamit def ñu seen liggéey daal yërëmunu askan bi daal yërëmunu askan bi mais état moo ci war jël ay mesures ba bu déwénee sax li li bañ am quoi waaw yàlla baax na yal na yàlla motul lépp daal. amiin yaa rabbi tonton donc Public SN mu ngi lay mu ngi lay jërë jaajëfal bu baax a baax a baax merci. sëñ bi noo. maa ngi tudd Ngom Lamine Public SN TV moo fi jaaroon tey di def benn émission bu ñuy wax ça m'énerve lan moo la énervé. non dem Touba waaw sëñ Touba nag moo wootee dama bëgg nag gars yi nag ñu wàññi paas wi dëgg bi nag dafa metti lool dëgg yàlla jamaa moo wàccee oto yu bees yi bëgg rek ñi bëgg rek gars yi yëpp yéeg si dem Touba waaw. yow depuis ban heure yaa ngi. man fii laa fii laa fanaan fii laa Euh, si si mën naa fi laa waaw fi laa fanaan yeewu faya teer dem gàll xaboon ndox ñëwaat. Public SN TV mu ngi lay jaajëfal merci beaucoup. noo tudd. Ndour Oro koy wax de. naka nduur Ndour Ndour. Ndour monsieur Ndour tey waa Public SN TV ñoo fi jaaroon di def benn émission bu ñuy wax sa ça m'énerve yow lan moo la énerve. li ma mooy gars yi dañoo bus yi dinañ ñëw fii dinañ fi déployer déployer lu mat ay 400 bus et quelques boo xoolee man ñiy jóge yëmbal ñiy jóge pikin ñiy jóge géejawaay ñëpp def déplacement pour arène nationale nga ngi leen da ngay leen di déployer ay bus yu bari gars yi ñëw fi depuis ay 6 heures du matin ba nii nii 18 heures 19 heures am na ñu bari ñu ngi delluwaat par euh, moyen boo xamante ni bus yi satisfaire wu leen léegi nee naan euh, dañu arrêté war a commencé waat affaire bi demain matin incha allah ay 6 heures du matin encore

rang bi xaw a joxasoo ma ne noonu naa dem léegi nii laa ñëwaat laaj waa ji mu ne wàcc na instant yi dawatul nee na danoo arrêté ba suba encore 6 heures du matin léegi nag ñi fi ñëwoon ay 6 heures du matin ba 10 heures ci suba fekk leen fi biir bii si première convoi bi mu jàllee xam nga première convoi li mu yóbbu bëriwul bi mu jàllee gars yi danoo obligé taxawaat fii pour jëlaat taxi pour war a dem boo Marisé wala buntu pikin te xam nga ku jóge woon Guédiawaye wala nga jóge Kër Massar ne xaaral ma ñëw xool si dem dikki bi fii jël taxi ñëw ba fii fay ko ay 5000 6000 nga ñëw taxawaat fii boo waree demaat boobu Maris ak say bagage taxi ngay jëlaat encore pour mu yóbbuwaat la fële oto yi doon mujj di yëpp fii am na oto yoo xamante ñëw par occasion lañ fiy jaar dañuy taxaw bu ñu nee 7000 convoi bu bëri dem jël dem yóbbu. paas mi ba cheru. paas bi 7000 la ñuy wax 7000 8000 non bii si 4000 la ñuy woote ñoom ñeneen ñi 7000 la ñuy wax oto bu ndaw ñu leen moom a coono bi nga fii daj moo ëpp te li waral coono bi mooy gars yi biis yi wax ne moom la ñuy pour mu ñëw fii indiwuñu biis yooyu presque bu ñu indee vingt biis wala quinze biis mu dem Touba da ngay taxaw bëgg a xaar biis yooy ñu dem ba ñëwaat dakaar ba Touba ban temps la fay def pour mu mën a ñëwaat ak embouteillage bi trop sax gars yi dañ leen fi lu méttee métti de mais nag yàlla baax nag coono bi ñu ci daj moom sëñ bee ko jar sëñ bee nu ko jaral mu doon nga doon Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul duñ déployé duñ def dérangement boobu noonu di ñëw fii mais coono bi yëpp jaral nañu ko quoi 18 safar gi la ñuy màggal waaw. donc Public SN TV mu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf merci beaucoup. salaamaaleykum maaleykum salaam. ça va na nga def. maa ngi fi. noo tudd. Djili Fall. Public moo fi ñëw di def benn émission bu ñuy wax ça m'énerve yow lan moo la énerve. ah lan moo énerve ñun si quatre heures yu matin ba léegi ñu ngi fii mënuñoo fexe ba andil ñu bis bis bu ñëw demaat balaa beneen a ñëw day metti loolu rek mooy suñu problème fi mu ne nii quatre heures ba léegi ñoo ngi fii taxaw amuñu amuñu benn bis buñ dugg ñun ma dernier mot mooy ñu andil ñu oto yi fii ñu man a dugg dem waaw yàlla baax na waaw man kay dama metti gaan suba ba léegi ñu ngi fi gaan xolo gisuñu oto gisuñu biis dañu woon fii buñ fi ñëwee dañuy ñëw dem naas mais gisuñu comme comme comme Bomaris buñ fa woon sax moo tene ndax fii gaan ñu ngi xolo sama yére yëpp ngi xotteeku gayaan ñu xëccoo gayaan xam nga jaarul nañu jëm président bi nañuy dimbale gayaan bii si ñëw ñi man a dem Touba suba ba léegi ñu ngi fi yaakaar naa ah man maa ngi fi 3 euh, heures 3 heures laa fi ñëw ba léegi mënu maa dem am na ñoo xam ne 6 fi ñëw ba léegi demuñu mooy loolu quoi ni ñuy jàppale gayaan bii si ñëw mooy loolu métti nañu koy métti nañu trop. damay posé question wala damay wax man ma lay maaleykum salaam. sëñ bi noo. man Baba Ndiaye laa tudd. Euh, tey dañuy def benn émission ñun waa Public SN ñoo fi jaaroon di def benn émission bu ñuy wax ça yow lan li ma énerve mooy xaar bu yàgg bi toog fii depuis ay 4 heures du matin nga ñëw fii ñu wax na la le bus su Dakar dem di kii disponible na mais malheureusement bi ñu ñëwee ba fii gis nañ ne bus yi doyul ba kenn xamul noo war a def espoir boobu nag ñu dénk ñu ne bu ngeen ñëwee fii. toog xaar bi si da ngeen ñëw mais malheureusement ñu ñëw toog fii ba yenn heure yi xoolal ku toog 4 heures du matin ba heure bii gisoo bis boo dawal te yaa ngi toog di xaar xoolal mbooloo mi mu doy ministre bi fekkee ne dafay jël mesure pour wax ne ne yokku paas yi nga xam ne moom la chauffeur yi def ci événement bi moo tax mu mettre bus yi en disponibilité de la population bus kon dañu war a doy mais population baa ngi nii yéen a ngi dégg bus bi sànq jaar fii 8000 fii ak Touba jaaduwul en même ñun ñu toog fii di xaar bus gisuñu ko kon lan mooy solution bi solution bi nga xam ne nii moom waxoon na ko donc mën nañu wax ne amul gisuñu ko donc ñu koy woo di ko ñaanaat encore une fois buy jëlati mesures na fekk moo bus nekk à la disponibilité de la population parce que loolu koy waat ci koy xaar mais nag gisuñu bus ba pare pass yaa ngi fii seer ba dee